maa ngi lay nuyu di la Pël maa lay fay maa lay fay yaaboy maa lay fay bu baax a baax. sa rakk sa xarit. di préparer combat comme da diggante ma ki nga xamante ne mooy Gora Sock coow li nag bëri na. le 14 incha allah lan lañ mën a xaar si rek waaw waaw waaw incha allahu rabbi xanaa di di di sant waa amoo 456 yëpp. sant waa Géejawaay ci mobilisation tey biñ mobilisé wu tey ci open press bi lii rek day wone ne xam waa géejawaay gi yëpp a ngi ci ginnaaw sawaay muy Aziz Fils de la di ñaan sunu borom may ñu ci ndam bu kawe sunu njort barki Cheikhul Khadim tey it ah, di wax ne Gora Sock ah comme moom moom mu ngi chaque jour mu ngi naan dina corriger Aziz dina corriger bu la 14 na ko corriger incha allah. da koy daan dégg nga moom loolu bu ko waxee da ko wax wax ju ko waa mboor mboor yee ko wër rek mu neexoon lool rek xëy na gars yi bu ñu bu ñu demee bu ñu demee yàpp ci camion yi ba mu fees xam ñëw jox ko ci ndawal li mu lekk rek biir biir bi fees mu tàmbali di wax rek mais moom leer na ko leeru yàlla que ni fils de Balla barke Cheikhul Khadim moo ko mën téeméeri jon wallaahi lazim billaahi. kon da ngaa bëgg a xel bee dal moo tax muy délire. non lool loolu xel bee daloon nii rek te moom xam na ne moom fii metti noonu foofu la ñuy jaar de. taxaw na ne day daan góor a tax koo jóg. yàgg na loolu loolu biti la farante te na am na leneen lu ñuy xaar sax ci biir foofu waa parcelle génnaguñ foofu de. Eh, kon yéen a bokk yéen ndax moom góor a na am na li muy xaar biir euh, fi nga xamante ne mooy. génn fii mu fii mënu fi xaar kenn ku dul après ñu ñu duma ko jox ko suñu booy suñu rax yi comprendre nga barki maam Serafal ñëw ñu jël ko après xam voilà après ñu dem quoi. mais xamal naa la ñaari ndaanaan ay daje. yàgg na waaw góor a ndaanaan la ah, man du ma man du ma xeebal Aziz benn benn adversaire am. Ah. parce que moom champion la te ay champion lay bëreel ay champion la daan. waaw te di ko ñaanal ci làmb ji yal nañu sunu borom suturaal ci barki Cheikhul Khadim incha allah. am na yaakaar dinañ samp jaaga ñoom jaa jaaga mun na cee waaw mun na cee am mun na am mais. am bi dafa xew fan yii dafa xew dafa xew loolu loolu faaw am sax faaw mu am comme que. bu arbitre sifflé rek jël am ñun yooyu bëgguñ ko. loolu mënut a yow loolu. yow Fils de Fils de Balla seeraan ngay làmbam loolu est-ce ko def ay arbitre sifflé rek mu jàpp nii de non non. non yooyu xam nga ni yooyu du am. wax lu ne. arbitre sifflé rek ngeen mu jeex loolu. barke xam nga ni loolu mënut ta ne sax. Ah. <laughs> faaw ñu faaw ñu joxalante. waaw ñamante tuuti ku ne xam sam moroom nag. comme que moom da doon wax Aziz Dangam dafa réew ak dafay dina ko corriger faaw ñu ñamante ba pare ba ku ne xam sa morom. waaw ah, jokkoor majoor jokkoo leen waaw <laughs> Paul bàyyi ma waay. <laughs> yàlla baax na non yàlla baax na wallaahi billaahi di ñaan yàlla sunu borom suturaal ñu ci làmb ji. may ñu ci ndam bu kawe suñu njort ci barki Cheikhul Khadim. wallaahi. open press bi damaa tardé ndax damaa nekkoon ci terrain bi maa ngi woon ci yoon bi xam nga man damay xëy rek di jëli ay images. nekk ci yoon bi di ñëw mais ci image yi gis naa la mbëru géejawaay yëpp ñëw nañ xam nga dëgg la waaw waaw waaw open press moom wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla xam nga gaa yëpp wane nañ ne xam nga euh, wane nañ que ne Aziz seen doom la quoi Aziz seen seen seen rax la seen doom la seen xarit la muy waa géejawaay gi yëpp rawatina waa amoo 456 bii nga xamante ne ci lañ dëkk te it ñooñu ñooñu xajal ñooñu yaatal ba nga xamante ne ñun war nañoo mën a def fi open press di jégalu tamit waa cité bi yëpp parce que déranger nañ ñëpp ndax euh, bu dul dara xama euh, di di di ay même bu dee même bu dul sax coow li mais ay tëgg nii di sonal nit ñi rek loolu rek euh, àq la àq la kon dañuy day jégalu waat waa amoo bi yëpp 4 5 6 di jégalu surtout waa amoo 6 waaw ñu ngi nodd waaw bisimilah waaw di di di wax ne tamit xama waaw comme ni nga ko doon waxee rek jégalu waa amoo 6 bu wér ndax sonal nañ leen lool tey xama même bu dul coow bu dul dara ci ci wàllum tëgg yeeg nit ñi fi xam nga waaw di leen jégaluwaat bu baax a baax a baax ci tuuru góor ak ñoom fils de Balla ak ñoom Gana ñoom ñëpp barki Cheikhul Khadim voilà ngeen nekk ci combat bu toll waaw waaw waaw loolu wallaahi neexuñu nag barki Cheikhul Khadim neexuñu. te nekk na loo xamante ne lu may lu may lu may lu may euh, euh, lu may lu ñuy regret waxuma sax lu ñuy regretter la parce que defuñu ko mais mais lu may ñaawlu la quoi ndax euh, bu dul dara guy gi guy gi guy gi magu magu magu Bou la te it xaritam la woon barki Serigne Touba Mbacke lu bari dama ko fekkee man damay ànd ak guy gi su ma mag la suma xarit la moo ma moo ma yar lu may booy ba tey Aziz mi ba ñuy booy ma ba ñuy ba muy mbapat ba tey maayor ci mu kaayam kon kon ñun dafa am leneen lu ñu war lu dul ay coow ak i ak i ak i yenn bagage yi nga xamante ne day day day yàq géejawaay wala deru géejawaay ndax Bou Siteu du ko bon barki Serigne Touba Mbacke borom baax la mais affaire bi tey daf ma bett parce que xaaruma ko woon ci moom tamit quoi. waaw maa gis après man mi sax moo mais dama jékki-jékki dégg ñu naan ay affaire ay daa dóor gaz guy yeeg yooyu noonu barki Serigne Touba Mbacke. billaahi man noonu laa ko yëgee xam nga comme ni ko est-ce la. moom laa lay wax xëy na dafa juum dafa juum barki maam Serafal parce que xëy na nag waaw mun na nekk tayeef mun na nekk ñàkk tayeef ah man noonu laa koy jàppee comprendre nga. parce que. Euh, waaw man damay man man daal mënu ma koo mënu ma koo catégoriser ci dara ndax man affaire bi daf ma dépassé quoi ndax daf ma bett xalaatuma ko woon ci ci ci ci Bou Siteu ak lu munti xew waroon na sóoraal ne mbër bi dafa am bés lu munti xew waroon na sóoraal ne guy gi magam la voilà affaire bi lu munti xew du fii noonu la demee nag yaa booy yow yow voilà yow yow yow nag waaw gindi nga ma te te li ma waroon wax waxal nga ma ko wallahi wallahi dëgg du romb ay nopp lii nii yëpp euh, waru waru waru waru fi woon yegg quoi pour man man dama koy ñaan moom moom moom moom Bou Siteu na ressaisir te te te xam ne xale la am na avenir devant lui avenir am mu ngi ci kanamam comprendre nga moom moom moom nitu àdduna la waratul waratul am fu muy toll foo xamante ni di def yoo xamante ne nit ñi après dañ koy dañ koy dañ koy biiw man noonu laa ko déggee ah, ci biir ful bi. kon mais dama koy ñaan moom moom mu ressaisir dem gisante grand am di guy gi xam nga jégalu ko waxtaan ak moom lii lépp jeex ak li ci ak li ak li jot a weesu parce que li jot a weesu xëy na moo waral indi lii yëpp ndax ndax ndax ay rancune yu yu yu ñuy dab yu ñuy téye di ko di ko di ko véhiculer di ko véhiculer day dem ba day indi leneen ak leneen xam nga lii. mënoon ah, bu jeex jaru ko. xam nga bu mënoon na door guy gi pompa gaz bi après guy gi tamit fipp foofu noonu coow am fi yàq open presse su jàmbur comprendre nga. après ay jamante wala lu ne mën fa am te boobaa boobaa guy gi guy gi moom moom la ñuy wax parce que moom turam moo gën a am fu mu yegg dañ naan guy gi nangam wala guy gi dafa ñaax fayda mais tey wane na grandeur sun muy sunu mag ju guy gi euh, muy muy affaire bi ba mu amee moom calme na toog na Balla Gaye de euh, def li ko war muy yóbbu Bou Siteu man noonu laa ci toll quoi te damay ñaan sunu borom tamit lii yàlla na fi yam te yàlla na doon xama suñu suñu mujjantalu coow quoi barki Cheikhul Khadim te li ci kanam yàlla na gën a neex lii nii ñun doon lañuy ñaan yàlla te Bou Siteu man dama koy ñaan man personnellement man gaa man man sama xarit la man budul dara sekk nañ jàmm ma jox cër ma jox ko cër xam dama koy ñaan moom mu ressaisir dem gisante magam bii di guy gi baalonteeg moom ak li weesu lépp nga xamante ne après er, day dañ koy éradiquer quoi mu jeex voilà parce que loolu mooy àdduna fii amul amul amul lu fi am lu fi dara métti fi kenn ñàqu fi dara kenn amu fi dara te lépp day jeex te lépp ci ay nettali mujj xoolal jamono ji booy di dee comme ay weñ mais loolu loolu loolu lan lan lay lan lay firndeel day wane ne sunu borom dafa xaw a sax mere jeunes yi booy xool. barke Serigne Touba Mbacke amul benn jeune boo xamante ne léegi yaa ngi yaa ngi koy teg ci code yaa ngi koy teg ci yoon booy yëpp léegi ñàkk nañ taalibe dañuy def lu leen saf xam nga ah, mën na ñàkk mais bu bu bokkul ci ñooñu parce que moom il est mature ba pare te da da gis moom ay nit di defay ay affaire moom mu leen di arrêté wala mu naan leen booy baa leen lii baa nangam te moom Fils de Balla buy surtout surtout surtout open open presse Fils de Balla nga xam ne xaritam la nitam la moom moo bëggal boppam moom Fils de Balla billaahi wallaahi gaynam la. war a defar dafa war a defar mais warul warul yàq te xam naa ne ñëwuloon pour yàq man leer leer na ma ñëwuloon pour yàq mais nag euh, seytaane bëri na doole bari doole goo xamante ne dem na ba poussé ko moom mu def loo xamante ne waru koo def na ma koy ñaan moom mu ressaisir dem jégalu kii di grand muy guy gi ñu bàyyi lépp mu sedd àdduna amul solo pël. barke Serigne Touba Mbacke. intention dafa garaaw. dafa garaaw. noonu la demee di la bëggee yooyu gànnaa ngi nii gànnaa gànna <laughs> waaw waaw waaw kooku sunu gànnal sama doom yaay waaw mooy mooy mooy sama prédécesseur. Goro Sok prédécesseur. dama jàng nak kii ñoo bokkoon waaw ah, waay non ce que maa ko rawoon <laughs> mais mais Izo. waaw kee mooy magu fils kee magu fils de la. muy iso moo mooy capi moo nekkoon capitaine iso bu waxaam ndeysaan waaw di ñaan sunu borom tamit xama defal ñu jàmm ak sutura defal ñu ndam nag ci barki Cheikhul Khadim dimanche ak jàmm di ñaan yàlla lépp li fi li fi xewoon ci ay ñaaw teef ak ñaaw ñaaw yàlla na fi gëj ci barki Serigne tubaa di la bëggee yow pël bu baax a baax kontaan naa ci yow xam nga ndax yow it ku baax nga dañ dañ lay seetaan nice dañ lay suivre ngay ngay ngay bëggee gaay bu baax te tey tey it mosoo mosoo génn ci biir làngu mbëri ndax ndax da ngaa xam ne ci biir nga bokk kon yooyu dañ lay ñaanal suñu borom lafal la cat musal la ci seytaane xam nga la ba nga xamante ne seen télé bi di Baol lan TV waaw Baol waaw SBT ak SBT yàlla na saa borom dool leen sutura defal leen tawféex ak taysiir barke Cheikhul Khadim ah nga ne. waaw. Pël nga ne. nee na luñ mën a xaar ma ne lan li ñu mën a xaar ci làmb ji non yow loolu xam nga ko la làmb ji sax léegi man man maa la wax léegi dañ doon dañ dul sax xeexat léegi dama lay wax benn be loo mënta dégg. waa ji bu ñu ko jàppee du mat minute barki maam Seex Rafal ñu tàqali koog moom non sàmm jaaga bi sax day yomb parce que après day góor soog dañuy yab quoi xam nga après day ndurul leneen quoi yow maa ngi lay jaajëfal pël kontaan naa ci yow bu ma bu ma kii <laughs> pël waay